docteur Babacar Niang ñu ngi lay nuyu di la dalal. madame euh, euh, may fàttali ne ñoo ngi dalal directeur bu Suma assistance tey ji euh, docteur ñuy laam-laame ay fan a ngi nii ñu ne boo mayul ñetteelu vague bi dana egsi fii ci Sénégal donte ñoo ngi gis ne ñoo ngi vacciné campagne baa ngay wëy waaye autorités yi ñoo ngi wax ne dispositif sanitaire ga ñu tàmbalee woon moom lañ fi amee ba tey tey nga jàpp ne lan moo waral nit ñi di laam-laame ñetteelu vague. ñetteelu vague bi de man bon man waxuma sax ñetteelu vague parce que bon maa ngi la koy fàttali tamit duma spécialiste de euh, d' infection ci urgence yi jam mooy médecine jàmb mhm. euh, dañuy euh, jàkkaarloo wax lu nekk ci jàkkaarloo woowu nag la ñu gis ne chaque fois bu ñu waree dimbale sunu sunu xe kii sunu jëf suñu naataango mhm. dañuy jóg ci lu nekk ba préparé wu mhm. moo tax dañu mujj am benn service boo xam ne sax covid rek lañu say hospitalier bu juróom ñaari lal ak benn benn salle réanimation. Mhm. Ah, am nañu aussi benn étage ci clinique bi xam ne bu affaire yi Dakar <laughs> Ndaase suñuy <laughs> Dakar Ndaase lañ koy wax si wala wala bu jaxasoo. Mhm. Euh, étage boobu lañ koy euh, mhm. sax euh, ci feebar bi yëpp daan nañu hospitalisé ba ay quatre-vingts personnes bu méttee. Ah, di mois de mars bii mujj rek mois d' avril bii rek avant mois de mai bi mujj rek am nañu trente-deux personnes yu hospitalisé ak ñeent ñu ci gaañu bon parce que dire rek feebar bi moom vraiment bon moom dañu nit ñi di wan rek ñu ngi ci jóg mhm. bon léegi nag feebar bi mosul wàññi mosul génn Sénégal ñun bi mu gën a neex a neex bon amoon nañu toujours benn malade mosuñu nekk zéro mais wàññeeku woon na kay trente deux jógee trente deux bi am sept mhm. na le mois de mais bi rek ñu ngi woon trente deux mais ci mois de mai bi mois de juin bi bon ba fan yi ñu ngi à peu près neuf jëm dix fan yi sax la gën a yokku parce que ñu doon amay un deux mais temps yi bi ngeen di wax troisième ko mhm. wàcc boo xam ne <laughs> wàcc buy yéeg la xam nga wàcc buy yéeg xamoon nañ mhm. ci ah, ah, muy yi wàcc tuuti nañu mais mu ngi monté mhm. bon jógee na trois ba léegi ñu ngi six pour cent mhm. bon te loolu tam wax naa la si <laughs> résultat yoo xam ne Pasteur rek moo koy def boo bon euh, boo jëloon Sénégal yëpp xam naa war na ko ëpp parce que Sénégal Pasteur tam xam ngeen ci mu yem li ñuy jël Dakar moo ciy gën a génn ak euh, selon naataangoo yi tamit gis nga affaire médicale ñëpp ñëpp jëguñ ci <laughs> faju wolof baa ngi fii ci hôpital dem yóbbu ci ñëpp ñu defal la analyse yóbbu ko Pasteur nga jot résultat bi kooku boo nekkee euh, xaw ma Malicounda wala Kidira xam nga ne du yomb donc moo tax euh, muy noonu mais ñun daal li ñu seetlu daal temps yi moom euh, vraiment yéeg na liñ ci gën a jaaxal tamit mooy ñi nekk ci médi médical bi mm-hmm. dafa mel ni ñoom dañu bàyyeeku te taxul malade ngi ñëw ñoom bon temps yam nañu médecin bari jotoon a infecté li jaaxlewaat encore ci feebar bi actuellement c'est que pour nga boo daan def benn analyse de contrôle pour mu négatif mm-hmm. léegi il nga def ñaar wala ñetti contrôle bu la muy négatif donc c'est que na malade yu sax ñu bàyyi leen ñibbi seen kër fekk négatif loolu laa lañ ci gën a seetlu. tey ñuy wax ay ay variant yu bees tey ji nan nga ñu ko mën a expliquer lan mooy variant euh, ndax virus bi dafa am euh, dafa soppeeku euh, ci beneen anam wala. waaw variant ni ma la ko mën a expliquer mooy lépp luy dund te di jur. <laughs> booy jur mënul nekk benn jur boobu day dem ba changé booy jur tamit fekk euh, ñu di la dóor ay paaka di la jën a jox ay médicament di la bëgg a rey yow tamit da ngay a defarlu ah ki nga xam ne bëtam leerul a rey moom dina mën a gaaw a daw mm-hmm. ah ki nga bon loolu mooy loolu mooy variante di dem ba en fonction de li ñuy def ci yow nga gën a yow tamit defarlu pour mën a mën a gën a dund lépp luy dund moom boo koy jéemee dund ci àddina bi loolu ngay so <laughs> yoo yaa ngi nii depuis ay année ñu da ngay dégg ay résistance mhm. microbe yi c'est pareil da ngay utiliser antibiotique yi gën a baax mais du tax mu a ah, euh, day toujours am résistance ñii tamit dañuy dund loolu ñu leen gën a jox ay garab wala jéem leen gën a rey ñoom dañuy changé te jur sax booy jur rek say doom dañuy changé mhm. ñëpp mënuñu ñuroo si bañ a ñuroo boobu nag am na ñu ciy soxor am na ñu ciy baax am na ñu ciy loolu mooy variante léegi nag euh, addina bi du benn mhm. am en Inde balaa bu fa amoon tey ci midi euh, balaa suba ci midi mu àgg mën na àgg Dakar mën na àgg ci monde bi yëpp parce que avion yaa ngi daw. Euh, ngelaw baa ngi daw <laughs> juriste tamit amul passeport <laughs> amul passeport du laaj visa <laughs> amoon visa sax nga ne ko doo dugg fii moom du laaj moo tax nag mu mën a ñëw partout te rapidement te loolu tamit la moom moom gën a yitteel may wax wax ne ay cas importé amu fa ñii ñëpp ñuy dugg Sénégal léegi bay am Pasteur wax ko am na ci ñaari cas officiel yu ñu donc ci aéroport yi am na lu fa am am na ñu fay dugg te jaaru ñu yoon am na ñu fay judd dugg seen seen këyit matul te defe naa société indienne yi ñu ngi Dakar am nañ ci ay ay chantier ñu ngi fiy liggéey. Mm-hmm. donc euh, lool tamit euh, bu ñu nax suñu bopp. feebar bu am ci monde bi euh, pour pour mu bañ ci accès Sénégal kooku moom a jafe. nga am loo wax sànq muy euh, jamono ji il vous faut euh, nga def ñett test pour nga mën a am euh, li nga xam ne moom mooy lu négatif ndax dafa firndel ne variant yu bees yi dafa gën a soxor waaye it dafay gën a yàgg ci yaramu nit ki. bon variant bu nekk boo gisee ñu la variant rek mooy changement. Hmm. mooy li nga daan am ci numéro un bi doo ko am ci numéro deux bi hmm. kooku moom changement loolu mooy variant. c'est bon ah, li ñu seetlu nag mooy ni ñu koy faje moom changé wul. ni koy faje changé wul. Hmm. Euh, mais ni muy peut être. boobu doo du gaaw a du gaaw a dee peut être loolu la. mais loolu la mën a doon am scientifique boo booy xeexa benn microbe nga di ko def garab yi war gaaw a kii soit nga yokk yokk say dose xool nu muy def mais yokk dose tamit yombul parce que boo yokkee dose sonal sa malade bi euh, day doy waar li ñuy vacciné wu tamit est ce que loolu tamit andiwu ci dara variant bi tamit loolu yëpp daf ci daf ciy adapté wu hmm. loolu yëpp moo tax daal Euh, variant bu xasee ba am rek moom ay changement de ci am. ci variant yooyu ñu tudd muy bu indien bi euh, bu sud africain bi nigérien bi sud euh, entre autres ban moo ci gën a virulent. waaw ah, bi ñu gën a ragal de actuellement mooy delta bi mooy bi nekk en Inde. ok moom jëloore <laughs> bu bon bi mu fa def moom mosuñ ko am fenn. Euh, donc defe naa moom la ñu gën a ragal est-ce que nag Inde tamit xam nga de feebar tamit euh, en fonction de xeet bi en fonction de fi nga dëkk en fonction de dëkk bi nga nekk lépp gis nañ ko gisoo ñun Afrique sax dañu waxoon ne euh, premier feebar bi bu arrivé ñun ñëpp <laughs> yàlla rek moo ñu moo ñu mën a yor en gisoo Afrique a résisté mieux que même les pays européens yi am xaalis que les pays yi am xaalis donc mieux même que l'Afrique du Sud boo xam ne dañu ne africain la ne taxul feebar bi dafa tar donc euh, jikku yi wala ni ñuy lekkee sax lu bari mën na ci mën na ci am ay réaction moo tax euh, feebar daal feebar bu bees la amagul ñaari at ci àddina moo tax euh, il faut ñu gën ko jàngat di gën a avancé peut être yàlla dimbale ñu gën ko xam. l'Afrique a mieux résisté mu doon say propos mais tey euh, gis nañu ne ci ay données OMS tendance bi moo ngi soppeeku ci Afrique maanaam kaa yaa ngi gën a jóg euh, ndax loolu tamit amul lu mu firndeel. bon c'est addina bi neen li ma la ko waxee rek benn la <laughs> addina bi ne benn la bon Afrique tamit suñuy affaire de du gaaw a feeñ parce que ñun ñëpp amuñu droit dem ci hôpitaux yi. toujours euh, day am benn décalage. Mhm. parce que le problème c'est que yeneen dëkk ñooy ñooy ñooy installé seen i critères. Mhm. Euh, di wax ne lii baax na wala baaxul. xam nga ñoom bu ñuy bu ñuy décider du ñu du ñu oo waa africain ne leen kaay leen toog ñu toog di wax lan mooy euh, oto bu rafet a oto bu rafetul. Mhm. Ah, ñun dañuy jékki-jékki rek mu ne waaye oto bi a rafet ñun ñu jëme topp ci ginnaaw. Mhm. Ah, donc euh, te xam-xam bi ñu ci Afrique bariwul. ñoom lii nekk ci taax yu mag yi rek la ñu xam. Hmm. ah voilà euh, Dakar bari nay iPhone Dakar bari nay Mercedes Dakar bari nay kii mais booy génn fii balaa ngay egg si Mbour euh, <laughs> yëpp changé. Hmm. Ah, donc moo tax seen critères yi ñuy analyser moo moo moo baaxul wala moo doyul. ndax li ah. tamit ndax li tamit docteur firnewul euh, ni négligence am na ci ndax aéroport yi boo fay jàll mhm. euh, dina am mhm. ay kayit yiñ lay laaj notamment ndax vacciné wu nga ndax ah. euh, am def nga tamit ay test covid ah. léegi jàll bi maanaam variant yi jóge dëkk dem dëkk loolu tamit nan mhm. lañ ko mën a expliquer <laughs> loolu foofu ngay xam ne bu Inde amee variante Euh, te du Sénégal. Mhm. France am troisième vague am ba quatre vingt trois mille décès am ci. Mhm. ñun ñu tollu tollooguñu defe euh, cent décès ñu ngi woon cent décès àgguñu àgguñu mille. Mhm. bon <laughs> yéen wu ko Sénégal yàlla buñ fa àgg mais ñu ngi dans les cent. te xoolal li ñu waxoon ci ñun ñëpp bu àggee en Afrique. directeur OMS mondial moo waxoon ne feebar bu en Afrique gis nga critères yi Afrique dafa ne feebar bu ñëwee problème. Mm-hmm. mais gis l'inverse. c'est l'inverse qui s'est passé c'est l'Afrique on parle maintenant d'exception au lieu sax ñu ne africains yi dañu dañu def recherche bu baax wala dañu respecté wala dañu am ay xam-xam wala dañuy jàng mm-hmm. mais waxuñu loolu dañu Afrique ah yàlla moo Afrique mais dafa am chance. <laughs> moo tax ma ne monde bi tamit euh, am na ñoo xam ne ni ñuy waxee rek en français seen seen jumbax rek la ñuy xool nombrilisme. ñoom dañuy defee ne lépp lu baax rek ci ñoom la war a nekk lu bon jóge jóge en Afrique kooku tamit foo ñu bop suñuy bopp. Mm-hmm. Euh, man daal noonu mën a gisee mais variante yi euh, feebar bi defe na ñi gën a yor ñi gën a wax ne ñoo gën a xam. ñoo ci gën am problème. doo virologue euh, certainement mais tout à l'heure wax nga ko da ngeen di dalal ay nit yi nga xam ne am nañu cas Covid tey euh, mm. ñuy wax ne mbir yi euh, wàññeeku woon na mais jamono ji ci yokk la jëm yéen instant bi nan ngeen di liggéeyee. instant bi bon ñun déjà bon xam naa ne ñun tamit bon xal nañu doon nañu jëmee vraiment rigoureux même na luñ ci bàyyeeku. Mm. defe naa masques yi ngi koy sol tenue yi ñu ngi koy sol mais defe naa désinfection bi ñu war a def ci biir service yi ni ko doon ah sunu eau javelisée di jar baax di pompé. dañ ko bàyyi kon bàyyeeku am na tamit au niveau des des structures sanitaires. il faut que il faut que topp leen. tiitaay bi tamit bu wàññeekoo il faut nit ñi wàññi seen loxo. mais li ma lay wax ne li ma ci gën a seetlu quand dal. Mhm. changement bi ci aussi da nga gaaw a def test nga gaaw a wér. Euh, deuxième test premier test moom lay diagnostic bi. Mhm. deuxième test bu ñu ko après une semaine nga daan wér. mais léegi dañuy def deuxième test bi fekk fi euh, ñu def presque troisième test microbe fi loolu daal lañ ci te bàyyeeku googu lan moo koy lan moo koy expliquer selon vous euh, donte même sénégalais yi euh, mel na ni euh, corona amatul ndax masque yi pratiquement ay benn nit ngay gis ci tali bi ñu koy takk. Mhm. parce que dernier événement yi am ci feebar bi defe naa ci politique la jógewoon. maanaam mooy ci événement bu Sonko yi bi ñu tëjee dëkk bi. mais hmm. ñoom seen bopp ñu ne si seen revendication euh, kii lañ koy arrêté a feu bi. waaw boo nekkee ci dëkk bu démocratique boo demee ba ñëpp te dina la nga leen di dimbale ñu ne bëgguñu. Hmm. Ah, il faut que toppale. dëgg la hmm. loolu tamit nga ci moo taxoon moom di relâchement bi. deuxième raison bi te mooy euh, restaurant yi fermé hôtel yi di fermé liggéey bi di ñàkk ah, ñàkk bi di di tar. mais bu yàggee tamit da ngay choisir entre euh, nga feebar nga bañ a dee xiif euh, ak nga dee xiif parce que boo demee nga amatul loo lekk à cause de corona bi bon am na risque yooyu ci loolu dem liggéeyi mu euh, gën si yow loolu ko mën bi ak politique moom ci la bokk. même nag médecin yi ci comme que ñun bal fii bal digg bal bi digg centre bu mott bi. Mhm. ñu war a encore gën a góorgóorlaat parce que man yàggoon naa leen wax ne feebar bi jeexul parce que man sama service bu ndaw bi rek depuis ñuy wax ne wàññeekul mu mosuñu nekk zéro ah dañuy dem ba mais zéro bi mosuñu ko gis tey bu ma la waxee tey ñeenti nit ñoo fa nekk ñeenti nit dans un service privé euh, mun nga contenir cent personnes ci biir dëkk bi. Euh, mu am tamit vaccin euh, docteur vaccin bi ban impact la am bu dee boo ko jëlee ndax euh, nit ki war naa mën na ne aar nga sa bopp. non dama ngay toog da nga jum du vaccin bi vaccin yi corrigé ma loolu ma dégg <laughs> vaccin yu bari yi. waaw vaccin yi bon. vaccin yu bari yi. d'accord bon dina ne nañu bu dëgg moom benn lay hmm. bu baree rek c'est am na ay problème yu fa am. ah <laughs> rek benn benn virus bu nekk même virus. ah benn bandi bu tudd euh, benn tur ah, ñu defal ko fuki bal ak fetal yoo xam ne mënuñ ko rey xam nga loolu day na waar. kon tey jii ay exemple ndax am ngeen ci yi nga xam ne ñoo ngi euh, jël nañu ci vaccin yi ba pare euh, dellu siwaat am jàngoro bi. feebar daal lu ngeen ci dégg ci Afrique ci monde bi ñun am nañ ko ñun privé sax am nañ ko. ku vacciné wu am embolie bi gis nañ ko embolie cérébrale bi am nañ ko. Hmm? mooy conséquences yi ñuy wax ci ci vaccin yi. conséquences yi ci boppam lañ ko am famille boo xam ne dañu vacciné wu ba pare euh, feebar bi jàppaleen dañ ko am kooku tam problème moom comme que vacciné woon est-ce que dafa war a def deuxième rappel wala déet bon professeur nee na Seydina kam nee na boo mosee am feebar bi moom pendant trois mois jarul ngay vacciné wu bu trois mois yooyu jeexee nga war a vacciné wu léegi tam technologie bi avancé na mën nañ jël sa deret xool sa euh, say euh, jumtuwaay contre feebar bi ndax doy nañu wala doyuñu kooku am na benn test booy def ñu doser say anticorps wax la ne ndax feebar bi ba léegi mu ngi lay may euh, mu ngi lay aar wala da nga melaat ni ñeneen boo vacciné wu ba pare tam bu la neexee sax nga dem testé sa deret xool ndax sa vaccin baax na bon mais loolu nag yëpp nag ay moyen la ñi assurance def naa ñu ngi koy def. Mm-hmm. bon ñeneen ñi nag euh, yàlla moo xam. bon moo tax affaire daal amul loolu lu ci mën a lëndëm lu ñuy wax ci information yi ci ci benn euh, vaccin bi wala beneen vaccin bi euh, boo nekkee ci ay nit di leen faj ñun ñun de gis nañ ko gis nañ ko loolu laa la mën a wax. Hmm. Ah, vaccin yi tamit yàlla dafa def ñun Afrique euh, foofu la moyen tamit ñëwaat euh, nit ñi dañu dañ jël seen bopp bàyyi ñeneen yi kooku tamit defe naa président américain sax mu ngi ciy xeex wax na leen ne mënuñu vacciner seen bopp bàyyi ñeneen ñi bu virus bi dañul en Afrique day delluwaat ci Amérique day delluwaat Europe parce que waa Europe tamit ñu ñëw en Afrique. donc euh, mu ngi leen doon euh, ñaan ñiy defar vaccin yi ñu yombal ko euh, jox ñëpp ñu vacciné wo en même temps te kooku tamit naa fekk nag tamit nga gëm vaccin bi vaccin bi c'est pas que ko mais dañu ne dafa teel dafa teel teel mooy defar bi tamit baax na moyens yi may nañu ko mais pour mu dugg sama yaram ngeen jàng ko jàngat ko kooku moom mënoo ko def ci ñetti weer foo ñu vacciner nit ñi pendant un an deux ans ñu mën a xam effet secondaire yi muy def am na yu ci jot a feeñ. so emboli bi ñuy wax ni au début kenn waxu ko woon il a fallu mu génn ñu defaat ay gëstuwaat xam ne waruñu vacciner ñu mag ñi xale yi lañu war a vacciner ci vaccin bi euh, bële lii lañu war a def si ñii donc jàngat boobu jeexul jàngat boobu ci vaccin bi ci garabam ci virus bi mu ngi soog a commencé. docteur Babacar Niang ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi lay remercier